moom la xale yépp bataamu di leen kontaanloo di leen sawarloo yokk leen kattan bagaasi sonto bi mun ngeen ko amee ca makkal bu mag a nekk ca Banjul 61 Lehman Street teggil tëgg 422 7566 sonto happy day with nekk arjana billaay fa di xiif di mar dinaa xoolal kër gi arjana bi rek hmm, war na ma ne naaj du leen dee laal man war naa mën a dugg ci kër gi laajte fi liggéey war naa mën a dugg fii laajte fi liggéey ndax kër gi xam naa ne jigéen ji fii sëy du du mooy kuy bale fii di di fi ma mu nekk nii ma socc fii laaj li ma gën a neex nag kër yi dañ a toogalu ne daa leen mën a dimbale ci affaire yi ganaar beeg record gini maar geef je. Sam! Moet er maar Moet je niet. Dan maar. Dauw, dat voelt je dolle. Amma udah Na fi. Kwasa? Da kuma kan ud lige da. Lige? Ma ah, lige ra iya, usi da. Yo ya? fo dige? Ma bantala. Bantu suri ne da sunna si. Mm. man de wax dëgg yàlla soxla ma liggéeykat hmm. waaye am naa suma xarit boo xam ne saa yu def daf maa kool ni ma su ma gisee ma yóbbul ko ko mën ngaa ma la ko mënoo nga maa bàyyi ma liggéey fii gis nga kër gi ñu ku mel ni waru di liggéey man mun naa la di sottal kër gi nekk ni suma yaram bi yëpp a ngi kat kat nekk nii mun naa liggéey fii bale fii ba mu set man nag dama liggéey liggéeykat man suma suma su ma bëgg a mooy man suma jëkkër lépp lu mu maa koy def man bëgguma kenn defal ma dara pour suma jëkkër waaye am na suma xarit boo xam ne waxtu bu nekk daf ma day koo dina ma soo ma ko mën ngaa ñëw tamit ma koolal la ko su fekkee mu ngi ko soxla ba léegi ma yóbbu la mënoo nga maa bàyyi fii rek man ma liggéeyal la yow man aw ma kenn aw ma benn xale maa suma jëkkër rek fi nekk xanaa suñu wañ maan bi dafa tukki ma rek kaa fi nekk mu tax nga war maa jël kaay la ko mën naa mu jël la mën <laughs> la ko jaga nu ma yàggee topp koolal utal ma jàngal hello jaga mbay na nga def yaay ngi cool mu gog yamba do fan yi ne suma ma ligge kan mu utal la ah jaga amna ko xamne mu wax dëgg yalla warna mu nit am nga jaga ke nga yaay ba do la mu wax na ma am nga hmm. te kii jaga digir na di kii war naa mun nga toga mu baax asila ko don dina mu ne warna mu mun

foog ni fu nekk la ñoo dem ñu ñew ba ci buntu kër gi mu takka suma bodi njëkki ji dama xolam ma gis kër gi mu na ma jël caabi ngay borom xam nga kula defal li hmm. li la déssé sa dund du dara lu dund nga jamm ko hmm. té mo suma sañu wax dëgg yalla di suma dund gi dina ko ko jamm di tarbiyu ba am ma lii de moo tax bëggumaa jël jàng wax dëgg so so ton liggéey toon rek sila sa jamm yalla bi di gën mon si naka lay sa jëkkër rek ngay jublu moy sa jublu way man ma concentré ci liggéey naa ne man ma nekk ci toog bi boo bëggee mu ngoog macha allah bisimilah. ah naka waa Mbanta. waa defuñ dara. alhamdulilah. naka foofa. waa allah. naka oor pour si ah. ah. waaw mu ne dafa bëgg a liggéey. Ah. waaye nga man moom ma xooloon ne naa ko bëgg a liggéeykat. ma kii waroon ja kii de bu sañoon nga bàyyi ko fi Cheikh mu lay wettali benn doo ko jël rek bàyyi ko ci kër gi kër day am wettal nag yow it te kii ni ma ko gisee nii. yakarna naa war na fee mun a nekk bilaay man nijaay li nga wax sa bañuma ko sa loolu la ma nekk di bu yàggee sama fone dama ko bugu a jël waaw waaye nijaay tabax keur gu melni ñu bété ma banex duggal ma ci keur gi nijaay wax digg yalla su ma ko ma dimbale rek damaa yaafus te man li ma bugga a suma xol moy nga tok ma di la toppatoo looy lekkaal li nga sol yëpp ma mako bugga defa a defal suma boppa te suma ma utee kat dama tok rek ko du defa ci dara si nijaay man jaamu yàlla nag moo ma dese si dunda dara <laughs> eh Ija da ngay chalir rek waaye yow xam nga ne yow xam nga ne yow yow yow yow yow bëggatuma bant bi sax bëggatuma nga dem ko kër gii tey bu ñu ko jënd la jox caabi ji munoon bu ma ko amoon jox la fukkam ndax muñal nga ma teral nga ma sutural nga ma sagal nga ma gis nga ma def lu tax nga mer waaye de maa sutural noppi muñ nga lu nekk kon yow tey lu ma la defal damaa fay bor waaye lebal nga ba lu ko ëpp boo tëddee na nga nelaw sa ginnaaw ba moo tax cër bii nag damaa bëgg nga bàyyee ma ko ma ko bay ko ci kër gi mu lay wettali di la dila di dila fóotal di defal li nga soxla yépp soko ko bala ngay woote bala ngay teg bala sa gemi ngi tëju mu ñëw ki jël ko mu nekk sa kër ma di ko fay weer bu nekk sa dërëm bu ma mu dugg ci la ko ñaan rek may ma cër bobu ndax ki ni mako ko ni nii óolu naa ko ndax gisuma muy paccal comme ni ko xalé di tojal ay di paccal di ko diko di ko di ko ak di ko koti. waaw gisuma mu def loolu kon kii moom xam naa amuloo loo ciy tiit wala nga ciy fii rek yooyu dimbale ma rek nga may ma loolu mu lay jàppale sama wax ji moom sax du fiir waaw ndax lenn rek nekk na si moom waaw son na lu muur ay muur ay cëram yëpp mu mel ah, benn melokaan bu ma tiitee ay mbiram waaye nag nijaay dama bëgg a moom lu jëm ci sa biir mu bàyyi maa koy toggal ah, say yére tamit maa koy fóot waaw soo mu munee may loolu mun naa la non loolu non loolu muy naa may naa la ko bugga naa nag moom na nekk sa soxla soo xëyee suba ba ngoon lu mu bugg rek nga daw ci defal ni kuy daw safa ak marwa boo fi buggee yàgg yaa ngi dégg sa yàgg fi daal mooy moom fa nee xam sa yàgg mooy mu mere la rek nga génn <laughs> maa ngi yegg si yéen waaw kay <laughs> <laughs> eh Diop Faye am nga gan de hi. bàyyi fi Basan bi kay. ah waaw. Basan bi moom fu ma dem rek dama ko yóbbuwaay. ndeg bi fu ma fekk rek. bu may tonte mat laa waaw ma ma ma tëdd ci mbedd bi noonu rek. ci mbedd bi nga tëdd. balaa naa juróom ñaari fan ci mbedd bi ma la maa egsi nii. ah yow sonn na nga ni mbaa daal nga lekk. basmati rice produced specific farms from North India. Lido basmati is perfect for good health. Number 1 selling basmati rice in West Africa. dama di fiixal di dalal di relax ni mula la di wétale kook kasi song quick juice bu sedd guy some quick juice, uh, cafka amelo am na cafka cocktail ci biir na cafka orange lépp di saf gi ci juus ak neex neex gi mu àndal dama ne xew-xewi jamono mun ko amee ca makkaan gu mag ca Banjul 61 Lehman Street wala ca Kairaba Avenue ak bépp supermarket ak boutique ci biir réew mi teggil dëgg 924 4331 wala 244 2485 mojji